waa delloo naa la ziar. waaw ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. tey di bëre. waaw nga ñëw ànd ak moom dooleel ko. ci biir tuus bi sax damaa gis ni jéen mooy bëre. lal la. waaw loolu man sax tayu ma ko. <laughs> waaw mais xam naa mooy loolu làmb la rek affaire yi yëngu xam nga. waaw mooy loolu daal. waaw indi nañ ko ni ñu ko daan indee. waajal ko baax a baax a baax instant yàlla moo si des yàlla yàlla moo tali waaw. boo nekkee doomu mbër. dugg si ci làmb ñu bari di la séntu fenn fi boo ñëwee ci stade bi nan nga war a wane waaw fu laak fayda parce que doo mbër mën naa chance la du chance chance bi mooy balaa ngaa bëri dinañ la xam beneen côté bi nag mooy képp kuy bëreeg yow rek bakanam la ciy teg danaan doo mbër laay bëreel xam nga dañ koy favoriser wax ay wax fekk na demeewul noonu doo mbër loo rayante rayante tamit te dafa fu laak fayda xam nga yaa ma gën a xam waaw noonu la demee daal doo mbër daal xam nga neex na neexul mais sant yàlla nag te dañ ciy fier nañ ci trop combat la ci Mbagnick mën a génnee waaw Mbagnick fu laak loolu laa ko wax nee sa morom la jox ko dafa wàcc si kër yow nga wàcc kër mu ñëw comprendre nga jox ko cër bi mu mat te cër bi mu boo waree bëre xam nga boo waree xeex xam nga boo waree def fula def ko fa ñu ñibbi waaw. yow ci lan nga nekk. waaw man maa ngi nii di xaar. gars yi lu ñu wax. waaw ah, gars yi ñu ngi waxtaan ak bi nag ñu ngi waxtaan ak moom xam nga mais dara confirmé gul mais yàlla baax na. nga bëgg. waaw ñëpp man làmb laa fi nekkal. am na ñoo doon laaj ñu ñoo la ëpp mbooloo ñoo la dàq bëre ñoo la dàq xeex. waaw non moom ay mbooloo lay wax mbooloo. waaw te xam nga tey Marseille lu mu bëri bari mbooloo du tëb dem di Ligue des champions foog mu jël paie wala deux si naa doo ko dem. kon affaire du mbo sport du mbooloo mbooloo jagleem na nag yàlla moo ko defal te yéene nañ ko ko lool macha allah champion la mais na wax leneen si jéen lu dul mënul feesal Iba Mar lamb preuve la te moom du lim mbër boo xam ne man daanu moo ko palmarèsam doo ci lim koo xam ne moo gën a kawee man ñi ma daan amul. mais bu nee bëriwul ak yow kan ngay bëre. te ma dagal la ci tamit nekkul sama ambition moom ci lamb. bu dee sama ambition moom la woon kon jot naa ko ci làmb. lan a jaar ci bi lan mooy seen problème. non amuñ Siteu man aw ma problème ak doomu aadama moom champion la ndaanaan la góor yàlla la xam nga waaw mais xam nga rek waaw ni mu waxee la rek laa ko tontoo waaw. bu dul Siteu foo jëm. làmb maa ngi fuur na catégorie bu ma dugg si moo daan ta laa jugee yàlla ma ndam am na catégorie bu ma dugg ñoom xam nañ seen bopp yàgg naa leen tudd affaire yi taxawul comme jaratul mu ne moom yow doo doom nga ci moom lan ngay wax ci loolu. Alioune Seye moo ma jàngal bëre Alioune Seye sama premier combat yëpp moo daan ñëw yàlla xam jox ma tànk bi ma ci ma koy jël di song di ci bëre mooy daan jël yu rëy ba ma dem ba dëgër ba ñu commencé muy metti ma ak moom. xam nga yàgg na kooku soog sama paapal la écurie Waalo ak écurie Soumbédioune moom ak lu gars yi mën di wax dafa am lu ñuy sàmm muy la dëgër numéro ak sama pap maa ngi koy nuyu baax a baax di ñaanal be Diène aussi bu baax a baax yàlla génnee ko mu ñëwaat suñu biir parce que namm nañ ko lool te soxla nañ ko waaw jaajëf jaajëf gaynde